allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di jaawo jallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka mi ñu may xéwal ya nga xamante ne kenn mënu koo natt waaye ñu góorgóorlu jukki astuut ndax moo ñu ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewal yama leen di xéewalal ma yokk waaye mu wax ñu ne wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha bu ngeen fi nekk di lim samay xéewal yama leen xéewalal du ngeen ko peeg te du ngeen ko matal waaye lu fi nekk xanaa rek ñu doyloo anam yañ koy defee ak suñu kémtalaayu kàttan yañu yàlla wërsëgal bokk na ci xéwal yooyu yàlla buur bi tabaraka wa taala xéwalal mbindaafoon yi mooy xéwalu nelaw <coughs> waaye ba léegi bokk na xéwal ba yàlla tabaraka wa taala xéwalal askanu julli mooy xéwalu julli waxtu yi fajar mbokki yi yan na jàmmi nekk ci yenn ak seen njaboot xam ngeen ni xéewalu julli fajar muy njëlbeenu rencontation ba jullit bi di am ak boromam mooy njëlbeenu audience ba jullit bi di am ak boromam suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ngeneelu waxtu woowu ak ngeneelu waxtuy julli woowu kon bokk na ci xéewal ya yàlla yenkeewal askanu jullit ni mooy xéewalu jaamu yàlla <coughs> waaye ñaari li xéewal bi léegi mooy xéewalu nelaw bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala moo ko baaxee mboolem mbindaa ndax bu ñu demee xool ci suñu téere bu mag ba ñu yore fii ci àddina si ñu di ko jàng te mooy téere alquraanul karim bokk na ci saar yu fasante ko ak yu fasante ko ci biir téere boobu buur yàlla duñu won woon kawtéef ak kimtaan bam ñu defal jamono ju ñuy nelaw moo tax mu ne ñu ca suratul ruum wa min ayaatihi manaamukum billeyl wannahaara wabtigaaukum min fadlihi inna fi dalika la ayatin li qawmin yasmaun mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala man-man ak sañ-sañam ci mbindaafooni moo ngi nii di ñu laaye biir di wax ci téere bi wa min ayaatihi bokk na ci kawtéef ya nekk fa moom yàlla manaamukum bi nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi <clears throat> wannahaara ak bëccëg bi léegi ci kawteefu yàlla yi lañu bokk bokk na ci kawteefu yàlla yi bi léegi wabtiqaaukum min fadlihi ak xéewal ya di fàggu ci kaw suuf si te yàlla tasal leen xéewal wërsëg ba ngeen di fàggu ci kaw suuf si loolu yëpp kawteefu yàlla la buur yàlla nee inna fi daalika mu ngi ci lii le ma leen joxoñal nii laayaatin kawteef bi nga xamante ne li qawmin yasmaun ñu ko war a dégg ñooy xeet yay nangu déglu waxu borom bi ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa ndegem nelaw ba mindaafoon yi di nelaw dadi di kawteef ba tukkee ko fa yàlla kawteefu borom bi la subhaanahu wa buur yàlla nee na kawteef boobu man maa leen ko baaxe waaye bokk na ci kawteef yama leen di baaxe mooy bëccëg bi nga xamante ne jant bi ne danaan fang seen kaw waaw waaye bokk na ci kawteef yooyu wabtixaaukum min fadlihi sàkkute fu wërsëg ba ngeen di sàkku ci kaw suuf si loolu yëpp yàlla nee na da di kawteef boo xamante ne mu ngi ci aaya mu ngi ci waaru ba nga xamante ne képp ku nangoo dégg la la alquran di wax yenentu bi di la ko wax yaay war a mun a waaru ci lala la yàlla di joxoñ ci aaya bi yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet amin ya rabbal alamin waaye ba léegi bu ñu demee xool ca suuratul zumar dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala mu du ñu baaxee ci aaya ba mu naan yonent bi ne allahu yàlla yatawaffal anfusa mooy faat bépp bakken xiina mawtiha jamono ba bakken yi di suub di dugg ci dee bu ndaw te mooy nelaw yàlla ne bakken yi nag dama leen di séddale ci ñetti bërëb bakken bu njëkk ba buur yàlla ne walliti lam tamut fii manaamiha bakken joo xamante ne duma ko faat duma ko rey ci jamono ba muy nelaw waaye duma ko dugal ci nelaw yu xóot dama koy may yelam dama koy may nelaw bu yemamaay nelaw bu woyof laa kay may nelaw boobu bakken jooju di nelaw du doon nelaw bu xóot waaye nelaw singim la ak nelawu jayaxu nelaw bu woyof la ko yalla di may ndax am na ci doomu aadama yi ñoo xamante ne bu ñu singimee wala ñun jayaxu rek moo nelaw nañ nelaw bu doy moo tax yàlla ne walleti bakkan joo xamante ne lam tamut duma ko faat fii manaamiha ci jamono bu muy nelaw nelaw bu yamamaay boobu man yàlla may dogal ci bakkan jooju mu melo melokaan wi ni mel waaye buur yàlla ne ñu ba léegi fa yumsiku leti qada alayha al mawt ñaareelu bakkanaa ngi nii boo xamante ne buur yàlla daa namm ci moom daa soob ne bakkan jooju des ci nelaw bi mu continuer di nelaw bakkan jooju lay récupérer moom lay faat waaye ñetteelu bakkan bi bur yàlla nee na wa yursilu uxra ila ajalin musamma bur yàlla nee na mooy yónnee bakkan ci jëmm joo xamante ne keroog ba mu génnee ci jëmm jooju yàlla da ko ci delloo bi keroog àpp ba kenn jooju di jot mu daldi ko faat yàlla ne ci aaye bi kawtif yamala woon nii yow sama yonent waaye kawtif la woon nii yow doomu aadama bi mu ngi ci kawtif joo xamante ne ña ko war a xelaat mooy boroom xel yu njànj mooy boroom xel yu sell ñi mooy ñoo xamante ne dañuy sóoraale kawteefu yàlla ci lépp duñu gis seen bopp ci dara waaye duñu gis mbindaa foonu yàlla ci dara mbindaa foonu yàlla duñu ko gis ci dara lépp lu ñuy xool lépp lu ñuy xalaat kawteefu yàlla la ñuy seet ci loole yàlla nee na ñuy doxal ñuy jëfandikoo seen xel anam wi ma leen wax ni ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy xelaat ñooy xalam ci seen biir xel kawte fu yàlla bi ni mel calla waala yàlla ñu yàlla boole ci ñuy gis kawti fam saa ne ba tax na yonent bi nee na la yow jullit bi bu dee yàlla dala boole ci ñi nga xamante ne da leen delloo seen ruux kon boo jugee ko ci nelaw boobu di dee bu ndaw ba nga nekkee woon lara war mooy nga jàng ñaan bi isti azkaaru istiqaazu minan nawm ñaan bay wone danga da ngaa jóge koo nelaw nga daal di wax ne alhamdulillahi lladi mboolem xëytu cant yi ñeel nañu yàlla mooy buur boo xamante ne ahyaana moomu dundal baadama amaatana gannaaw bu mu namee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw te tamit wa ilayhi nushur ci moom yàlla dong lañuy dellu bu ñu tàqale ko dund bi mbokk yi sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lay jàngal anamu nelawin ba ngay nelaw waaye ana na nga war a mel boo jógee ko ci nelaw boobu ndax nelaw boobu nga nelaw da di mbindaa ko bind disperser ko ci jaami buur yàlla wax la ne am na bakken yoo xamante ne dama leen di teg nelawu jayaxu nelawu séngéem duñu nelaw nelaw bu xóot waaye duñu ñàkk nelaw yàlla musal na ci anamu nelawin woowu yàlla neena na mooy buur bi nga xamante ne bi léegi mooy delloo bakken ju ko soob ci jëmm ba mu bàyyee waaye moom bi léegi bokk na ci coobareem mooy téye mooy faat bakken bu mu ko soob bakken ja soob moo koy faat jamono bu mu nekkee di nelaw waaye yow yàlla musal la nelawuloo nelawinu séngéem danga nelaw be doyal waaye yàlla boole wala ci ñi mu récupérer seeni ruux seeni bakkan ba yàlla boolee la si ñu muy delloo seen ruux kon bu dee yàlla delloo na la sa ruux ba nga yeew nga ximiliku bi nee na la la war mooy nga delloo yàlla njukkal ne ko mi xeetu cant yu kawe yeeg yu mataley yow dong yaa waaw ndax yaay buur bi nga xamante ni yaa ma fàtti nelaw gannaaw si nga delloo ma sama ruux waaw te tamit wa ilayhi nushur keroog bu ma jeexalee dund bi ci yow dong lay dellu jalla wa ala du ma dellu fen duma dellu ci kenn ci yow yàlla dong lay dellu ba tax na yonentu boobu nela del jàng adkaaru istiqaazu min an nawm ñaan ya nga war a ñaan keroog bi nga yi ko nga yeewu ci nelaw bi léegi yonent boobu rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ci maana hadis mu ne ñu ngalawaay dangeen nekk di digle lu baax di tere lu bon lu jiitu ngeen di woon nit ñi ñu di leen bañ a wuyu si moo ne yonent bi jamono dina ñëw nit ñi dinañu woo nit ñi tere leen lu bon digal leen lu baax du ñu wuyu si mu ne waaw waaw jamono joojoo ngi ñëw de képp fu ñuy waxee fépp fu ñuy wax ak képp kuy wax qaala allah wa qaala rasul bu dee ci téléphone lañu ak ci appareil walla jumtuwaay yu xarale yu ñu gis nii doo am nombre de vi yu ëpp moo ne la la yàlla wax ngay nettali de ànd loolu dama doo am nombre de vie yu ëpp moo ne yaa fi nekk di wax yenentu bi nee na yenentu bi nee na yàlla nee na loolu mooy sa kàddu qaala allahu qaala rasul ànd ak loolu yaa ngi bëgg a jëlee nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leeru alquran ak ci leeru njàngale yenentu bi ànd ak loolu am vie yu ëpp nit ñi duñ la faale moo tax yenentu bi murru da ngeen digle bil maaruf yi njëkk wan haw da ngeen tere anil munkar lu ñaaw way na ngeen doon ñay digle lu baax ngeen doon ñay tere lu ñaaw qabla an taduu lu jiitu ngeen di woote fala yustajaaba lakum duñ duñ leen wuyu ci leen na ngeen digle lu baax tere lu bon lu jiitu ngeen di woo yàlla te yàlla du leen nangul walla lu jiitu ngeen di woo nit ñi te nit ñi duñ leen wuyu ñaari sens yi léppay mën a ne digle leen lu baax ngeen tere lu bon lu jiitu ngeen tàllal seen loxo di woo yàlla te yàlla du leen wuyu kon ñàkk wuyu ñaankatu yàlla bokk na ci nga téye sa bopp doo tere lu ñaaw doo digli lu baax loolu day doon cause nit ki tàllal loxoom yàlla te yàlla du ko faale loolu day doon cause nga tollook nit ñi gannaaw bu ñu nuuroo ci lu ñaaw nga taxaw fee di leen woo ci lu baax te duñ la faale jamono bi nga nekkee di digle njekk di digle lu baax di digle la yàlla wax ak la yenentu bi wax ngay tere lu ñaaw di tere lu bon di tere la yàlla tere ak la yenentu bi tere fekk yaa ci yii saa yoo tàllalee sa loxo yàlla yàlla dina nangu sa ñaan ñooñu ngay digle lu baax di leen tere ñaaw bés boo woowee dinañ la wuyu si kon nga déggee fane ne boo waxee dinañ la dégg te boo waxee dinañ la déglu moo tax yonentu bi nee na ngeen doon ñuy digle lu baax di digle njekk waaye di tere bon di tere lu ñaaw qabla an tad'u fala yustajaaba lakum balaa ngeen nekk fi di tàllal seen yoxu di dëkk seen yoxu di ñaan yàlla te yàlla du leen wuyu ci dara wala lu jiitu ngeen taxaw fii di woon nit ñi gannaaw bu ñu nuuroo ci ñaawteef ngeen bugg leen génne ci ñaawteef boobu andi leen ci leer te ñoom ngeen di woo dañuy tëdd benn ji lank kaare ba tëdd si naaj ba duñ leen wuyu kon képp ku bëgg nit ñi teel laa wuyu del tere lu bon del lu ñaaw del tere li yàlla tere day digle lu baax day digle njekk day digle la yàlla digle yonent bi digle ko boo taxawee woon nit ñi dinañ la wuyu boo tàllalee sa loxo yàlla ñaan ko buur yàlla dina la wuyu waaye nga nekk fi doo tere lu ñaaw du digle lu baax ngay tàllal sa loxo di ñaan yàlla yonent bi neena na nuñ lay wuyu kenn du la wuyu kon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi moo ñuy baaxee ci weneen xadis nga xamante ne ngénneelu doomu aadama bi dong nga fa nekk rawatina yow mi nga xamante ne ubbi nañ la xit bu bees ci at bu bees bi nga la way nanga ko géema rempli ci amir bir maaruuf digle njekk wanahi anil munkar terelu ñaaw na nga njëkk ubbi sa xit ci digle lu baax terelu ñaaw su ko defee nga boole ci ñaan yàlla yàlla di la wuyu yonenti boobu sallallahu alayhi wa mi yàlla yónni mu nekk rahmatan lil alamin yërmande ñeel mbindaafu ni mboolem seen moo ñu ne bés dafa toog ak sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ne leen abshiru wabshiru na ngeen bég waaye na ngeen bégelaate bég leen jàmm la waaye na ngeen jël mbégte bi génnee ko wesaare ko bégal ko ñeneen ñi jàmm de yonentu bi na abshiru ma ngi leen di bégal wabshiru na ngeen bégalaate mu ne bi lan la sallallahu alayhi wa ne man képp koo xamante ne waraakum mu ngi seen ginnaaw annahu li fi nekk man shahida képp ku seede an laa ilaha ne amul benn buur buñ fi war a jaamu ci dëgg illallah kudut yàlla saadiqan bihaa nga déggal baat boobu mu nekk lu dëggu ci sa biir xol ngay ko nga di ko manifester say cër yonent bi neena xamal naa la ne daxalal janna kooku dina dugg arjanna rawahu ahmad wa fi saxiixi albani yi ki yàlla yónni ci xeet bi sallallahu alayhi wa bi léegi moo ñu bëgg a baaxee caution bay tax duggal jullit bi këru xéewal bu nan naan arjanna yonent bi nee na man waraakum na ngeen bëggal ña nekk seen ginnaaw ñoo xamante ne dinañu ñëw gannaaw buñ fi jógee ko ñun ne leen innahu man shahida li fi nekk mooy lam ma fi bàyyi saxaaba yi bàyyi ko fi gaañu baax yeleen jiitu ci diine bi bàyyi ko fi yéen ñu topp suñu ginnaaw ñu ngi leen di xabaaree ne xibaar bi neex na de amaana du ngeen am jot dem toolu xare amaana du am alel bi ne gàññ ngeen di ko saraxe di ko génnee azak amaana lu bari di leen gàllankoor ba tax na du ngeen def la tax ngeen dajeg ngir mànde yàlla waaye lu ñu bàyyi suñu ginnaaw ngir ña ñoo ñëw suñu ginaaw ñu war ko mën a jëfandikoo mooy annahu li fi nekk mooy man shahida képp ku seede nga dëggal nga gëm li fi nekk mooy an laa illa allah amul benn buur ki ñuy jaamu ci dëgg ku dut yàlla saadiqan biha nga déggal loolu mu feeñ ci say kàddu mu feeñ ci say paspas mu feeñ ci say jëf yonent bi nee na daxalal janna kooku mooy kiy tàbbi ci xéwal ba nekk fa yàlla te mooy arjanna diggam charte bi mooy déggal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dut yàlla ah bu dee loolu mooy ñuy taxa tàbbil ci kër xéwal ba nekk ca yàlla te mooy arjanna kon mbokk yi kenn ku nekk si ñun war naa war mën a xar tànku tubéyam war naa war a mën a waajalal boppam ngir mu daldi wax kàddu gi ci làmmiñ am waaye xol bi na ko dëggal ku ñu ko baaxee mooy sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yan yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu bugg baaxee melokaanu julit bi nga xamante ne mooy ki dëggal lépp loo xamante ne sallallahu alayhi wa sallam baaxee na ko ko mu di ko appliquer ci anam ba nga xamante ne moom la gën a ñoŋe kon ba léegi aaya ba ñu wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil ma yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la nekkee ci askanu julit ñi ak ci xeetam moo tax bindkat bi ne allamani diini sama diini bi daf ma xamal muccukaay joo xamante ne mooy mel muccukaay ba ñuy mucce ci loraange mujjante la àddina te du fenn fudut fa sama diine joxoñ ne foofu moy muccukaay ba moo tax mu ne allamani diini sama diine bi xamal na ma ni ne li fi nekk mooy anna luzumal sunnata najaata wa annaha mathalu safinata nuux man rakibaha najja wa salima wa man lam yarkabaha garaka wa anna alfitan sayusabbibaha taraka ictisaamun bi kitaab wa sunna mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ki yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam bindikat bi daf ne sama diine bi daf ma xamal ne ma li fi nekk mooy anna liza anna lazum li sunnatan najaat mooy ci sunna yonent bi mooy texe wa annaha misle safinata nuux sunna woowu yonentu bi bàyyi fi de ci mujjantelu jamono mooy melokaanu gaalu yonentu yàlla noo xanaa du képp koo xamante ne war nga gaal googu mucc nga texe nga moo tax mu ne man rakibaha najja wa salima képp ku ngoy ci sunna mucc nga texe nga mujjanteelu jamono sunna yonentu bi dafa mel ni gaalo yonentu yàlla noox képp ku tabbi ci gaal gi dugg ci biir gaal gi mucc nga texe nga waaye mu ne wa man lam yarkabaha garaka képp ku dummóoyu gaal te mooy sunna yonentu bi képp ku dummóoyu sunna yonentu te mooy gaalo yonentu yàlla noox ci mujjanteelu jamono mooy di lap dinga des ndox dina la mëdd wa annal fitan ndegem fitna yi de taraka ictisaam kitaabi wa sunna fitna yi toori jafeñ-jafeñ yi qiila wa qaal moo ne mane ñu ne mu ne nekk ci loolu ñooy doon sabab ba doo mun a moy doo mun a téye ci alquraan ba yàlla wàcce walla doo mun a moy ci sunna ba yonent bi bàyyee askan bi ndegem fitna yi ñoo lay tënk ba doo mun a jàng atte yu sell xam-xam yu rafet ya nekk ci alquraan doo mën a tënk sa bopp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kon nga déggee ci maanaa kàddu gi mooy képp ku bëgg mucc mujjantilu jamono nanga nga dugg ci gaalu yonent yàlla noox gaalu yonent yàlla noox ci mujjantilu jamono mooy lan mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna yonent yàlla muhammad sallallahu moo ngi mel nii gaalu yonent yàlla nuux gaal googu de ci jamono yonent yàlla nuux ba yàlla doon bugal xeetu yonent yàlla nuux yàlla dako ne képp ku dugg sa gaal mucc texe na kon mujjantelu jamono sunna yonent bi sallallahu day mel ni gaalu yonent yàlla nuux képp ku dugg képp ku tënk sa bopp ci sunna yonent bi muy mucc texe nga dafa mel ni danga dugg ci gaalu yonentu yàlla noo waaye mu ne képp ku bañ a ci sunna yonentu bi mooy ki bañ dugg ci gaalu yonentu yàlla noo moo ne fitna yi dañuy doon gandaxu géej joo xamante ne ñooy lay mëdd nga daldi di ci fitna yi te ñàkk topp téere yàlla ak sunna yonentu bi mooy lay yóbbee nga lap ci fitna ya nga xamante ne ñooy lëmbee doomu aadama yi mujjantilu jamono kon yàlla ñu yàlla tënkloo suñu bopp ñu bokk ci sunna yenentu bi salaa ñu tënk suñu bopp ci lépp lu yenentu bi indi ci ndigle waaye ñu géema sore lépp lu mu ñu tere ci xeetu tere mbokk yi lii la leen réew mi fm 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi su ko defee waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi ñu war a jébbal bérëb ñay tas xabaar ci nasaraan ñoo ngi ni taxaw ñu di leen ñaanal yàlla ak suñu technicien bi ñu àndal ci liggéey bi yal na ñu buur yàlla may dégg ak topp nasaluka allahumma an tajcalana min alladina yastamicuuna alqawla wa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih allahuma aimmatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan wa kullu amin wa antum bi xeyr nasalu allaha tabaraka wa taala an yataqabala minna wa minkum saalih acmaalana